ñu dem ci ñaari yéenekaay groupe Futur Média muy euh, l'observateur ak record à la une de l'observateur grand bal 2022 euh, alerte à Bercy la ñu ko dippee ñu ne Youssou Ndour euh, réunion stratégique entre la préfecture de Paris la mairie de ville et le staff du roi du Mbalax maanaam daal ndaje mu yaa ñu ne Youssou itam dafa war a dem foofu nga xam ne moom mooy France ngir rek définir contour organisationnel yu spectacle boobu ñuy xaar ci weer wi lu jëm itam ci ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeenteelu euh, pèlerinage marial muy at gi amal ci Popenguine mu mel ne euh, église moom dellusiwaat na euh, taxawaay ba mu amoon démb ak barki démb ne ñu moom la ñu amaat tey ci wàllum homosexualité monseigneur André Guèye wax na ay dëggam tolluwaayu réew mi politique ak yeneen politique justement liste des titulaires bu scrutin proportionnel invalidé Yewwi sur le champ de mars loolu la ñu wax daal ñu ne xel dafa tey ak li fi amoon ci weeru mars daaw Euh, mën na amaat ak euh, coowal euh, législative yooyu ak les sept sages conseil constitutionnel dogal bi nu jël invalidé yenn ci ay liste Alioune Tine ne nag daal bu nu moytuwul sax mën nañoo dund lu yées la ñu dundoon ca weeru mars Barthélémy Diaz Aliou Sall mu mel ne fi mu ne nii fantasiro dox na daas salaam mi jàkkaarloo ak sama morom Sonko ñu ne la photo sur la liste de Yewwi et la situation inédite loolu lañu xamle lu jëm itam ba tey ci hausse du prix Euh, du super carburant ñu ne leta pompe euh, les particuliers épargne les transporteurs ndax dañuy fàttali rek ne yokk gi mu ngi aju euh, ci super laalul gasoil bi le Louga moom cambriolage wu clinique yaay xadi mu mel ne enquêteurs yi ne ñu ñu ngi ci yoon bu baax yi baax bi infirmière bi nag di soxna si fa fekkoon doon ko làmbaatu ak yu ne mel dafa mel ni daal da caa jóge am ci lu ko metti et c'est tout à fait normal ñu dem ci record ak El Hadj Malick record moom mi ngi fésal rek jàngante bi war a am bu ca kanamee à 19h diggante Sénégal ak Rwanda ñu ne nag gaynde yi dañoo daal di daal bëgg def carton plein maanaam gañe gañe waat am juróom-benni poñ ñu daal ci fëjal Sadio Mané mi nga xam ni mi ngi soog a dugal ñetti but ci équipe nationale bu Sénégal waaye ñetti but yooyu tax na mu romb Henri Camara mi amoon fanweer ak benn moom am na fanweer ak ñaari but Sadio moom moo nekk meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale de football du Sénégal xam naa ne tey ñoo ko dabliwaat Ligue 1 25e et avant dernière tournée Casa Sport jël na raw gàddu ko Njàmbuur ak euh, Mbour Petite Côte dem nañu ci Ligue 2. jërëjëf euh, El Hadj Malick Thiandoum Oumy Samb la ñuy dalal ci météo bi.